Cheikh Kouyaté tey ku ne xam na ni partiwul waaw loolu nag euh, surprise la du surprise surprise la si kaw ñun ñun ñi ànd ak moom bëggoon nañ ko gis si terrain bi mu parte football waaye nag euh, comme entraîneur bi moo leen di entraîné xëy na il a ses ba tax mu teg ko ci banc bi. ñu bëri daf ñu lii quoi daf ñu bett quoi. def ñu bett bu baax a baax parce que ñu xalaatu woon lii lii nii sax su moom quoi. ba fekk ñu yaakaar nañ suñ suñ suñu woon tey match bi tey moom premier match moom dina demaare démarrer quoi. Cheikh Kouyaté ku ko xam xam jomam ak fulaam xam nga partewul tey vraiment déception la si ñun nii quoi benn ñaar. xam nga ñu ñi nekk fii koñom dëkk ak moom sant gis ne wul santir nañ ko quoi. Cheikh Kouyaté moom toog si banc bi moom moom moom bu sañoon même bu wul na senegal gagné loolu moo am solo. bet na leen quand même. ah non non xam nga tamit euh, tànn la rek tànn. xëy na soit entraîneur bi xëy na moom moo xam la moo tax tànn ko mais dañ koy ñaanal yàlla balaa mooñ balaa mondial bi di jeex dana parte incha allah. la deuxième fois. Ah, ah, mais ah waaw mais quand même soit soit la rek soit entraîneur rek moo xam la moo tax loolu mais. waaw mais koñ bi xumbul xar yàlla. waaw dañuy waaw waaw waaw xëy na tamit dañuy ñaan yàlla bu Sénégal gagné léegi ñu xumbal fii ñun ñëpp rek. ce que ki ko remplacer bu defee yenn performance yi du risque mettre le. Euh, ah de toute façon équipe nationale noonu lay doxee équipe nationale noonu lay doxee entraîneur bi day teg ay système lay teg ak euh, match bu nekk dafa am physionomie ak ay joueurs yu mu bëgg a teg ak ak ak ak tactique bi mu bëgg a teg xëy na moom mooy xool joueurs yi approprié ak tactique bu mu bëgg a teg mu teg leen waaye ñoom ñëpp euh, kuñ ci dugal rek na nga muyee le maillot rek vraiment nga représenté Sénégal représentation bu baax.